fils de Balla. loolu la sonal ma. noo def. maa ngi nii. ma tànk bi maa tànk bi ban la ci. gauche wala droite. sëñ bi maa ngi nii xoolal. lii la xoolal. ndeysaan la dal kenn yéene mu ngi nii gis nga ma sant yàlla dogal la rek. mënuñu si dara. ñoo ko doon bëgg bëri fu mais dogal la rek. dañuy sant yàlla rek. mais Assane woo naa ko nee naa ko jàppalaa ma del mu bëri pare na pour bëre. boo déggee ñi nga xamante ne ñu ngi ci ginnaaw làmb bu mbër gaañoo comme li la dal ñu ne noo daa tappale wala daa daw combat lan nga leen wax. da leen dalul rek mais mbër bu préparé combat daanaka suñu combat am na deux ans nga préparé lamb bu mu ñëw des huit jours nga naan da nga dem di sa bopp loolu nax sa bopp la rek loolu dem ñu dal la moo gën sax mais ñun loolu nekk ñu su yooyu dañoo gaañu entraînement lañ gaañoo. bi loo koy wax ak affiche bi ñu koy xaar général Malika fils de Balla da ngay continuer di waajal général Malika wala combat boobu dañuy mujj. moom laay bëreel bëreel ma keneen moom laay bëreel si boppam général laay bëreel même dégg naa ko mu wax nee man ma moom lay bëreel. par force. force day bëre. force par force la day bëre. yow laa soxla par force ah. ko mu joxoon ñu la 4 juillet mu dugg si 4 juillet ñu bëre ko. ah barki Bamba wóor na yàlla.